découvrir nouvelle euh, technologie bi rawal lu ci mel ni ay euh, matériel euh, ay télévision ay téléphone ay machine à laver tout ce qui e euh, électroménager moom ji CSB moom lañ ci sant ndax moom lañ àndal ci frigo bu yànj bilee ak télévision bi ak euh, iPhone bi ngeen gis ak fold bi yii yëpp ñu ngi ci ànd ak ji li CSB kon euh, ñooñu la ñu àndal waaye encore remercier groupe Futur Média bi nga xamante ne nii moom itamit dafa def benn package buñ nee paquet ji nag Youssou Ndour day waa waajal nag bés bu rëy ca France ndax mën na namantikoo ko africain yi moo tax moom mu def paquet ji participation euh, Teranga euh, Sénégal paquet ji bi nag am na billet avion Dakar Paris Dakar waaye ci biir package bii am na tamit ay billets Bercy pour yow mais non seulement am nañ argent de poche ak logement pour yow kon yaakaar naa teraanga Sénégal riche na lool lool lool fi mu nekk nii nag gaaw leen ngeen jël seeni téléphone pour ku ci nekk jël li nga xam ne mooy sa tey ci biir teraanga Sénégal nii laa koy defee am naa ay greffage ci biir Facebook live bi mais no seulement euh, xaalis bi da ngay woote téléphone en direct ma mën la may 100000 75000 300000 ba 500000 francs tey mën naa koo maye mais ngeen euh, di woote ci numéro yii ma leen di bëgg a jox kon duma def rek lu dul ñu may ma dingal euh, bi euh, appelay boo ma mayee loo may may ma may ma con sec bi soit nga may ma Omar Pène agresse agresseur bi ñu tàmbalee ko ma tàngal tuuti sama yaram. Hmm? Thione Seck la ñu euh, la ñu ubbee tey pour euh, bégal euh, xol yi bégal laale ci sax sama bopp ndax man man démb ci stress xaw ma lu ma nelaw man xaar leen woon ma dindi lii <coughs> démb ci stress laa nelaw ay man tey damay njëkkee ci Facebook live bi mais laataa loolu damay joxe sama numéro téléphone yi nga xamante ne nii ñi ma war a may 100000 75000 200 ba 300000 jël leen seen numéro yi ngeen commencé euh, commencé nag tenter seen chance woote ci li nga xam ne mooy Teranga Sénégal limal naa leen partenaires yi nga xamante ne nii euh, moo tax Teranga Sénégal du jeu du gagnant. du loterie du loo xamante ne da ngay gagné ba kenn wax a perte euh, lu ñu xalaat la concept la boo xamante ne jàpp nañ ni buñ ko organiser wuti ay partenaires yu ñu jàppale euh, dinañ mën a jàppale ñenn ci sénégalais yi moo tax ñu jël euh, tànn toutes les sénégalais 14 raisons yëpp laa dem 14 raisons yi Saint-Louis mi ngi ci kaw 14 raisons yi à Louga mi ngi fi ak Matam. ak Dakar jurbel Thiès Fatick Kaf euh, Kaffrine Tambacounda Kaolack sama dëkk ak Sédhiou Kolda euh, Kédougou kon 14 euh, raisons yi mi ngi noonu pour ngeen xam ni Teranga Sénégal macha allah ndimbal kese moo ko fi indi gis ngeen lii 300 000 francs la mën na bokk léegi ci li may maye 300 000 yi mën na bokk léegi nga ubbi fii benn dëkk léegi mu am. 300000 am na nag benn dëkk boo xam ne moom lii la am ci raison yi am na ci benn raison boo xam ne c'est euh, c'est ma raison préférée man maa ne nañ ma ko fa defal euh, pour rek euh, waa dëkk boobu xam ne bëgg naa leen xam naa nag xale yi ñii dinañ jéem a ubbi Kaolack ñii jéem a ubbi leneen mais mais man ma raison préférée aujourd'hui ya y a 400 000 francs pour vous Aïcha maa ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi ma jox leen ko préparé leen 88 676 05 05 88 628 65 65 88 628 20 20 88 628 20 20 mais 88 600 mais 88 676 06 06 ma fàttaliwaat leen numéro yi 628 22 22 nga mën a jàkkaarloog man tànn dëkk bu la neex nee naa la teraanga Sénégal fii ku dugg dañu lay teral loolu par force la amul dugg génn sant dara teraanga Sénégal bu ñu ko waxee li ñuy maye nekk loo xam ne luñ yéene askan wi la kon ku fi dugg rek di nga mën a jël li nga xam ne mooy sa wërsëg mais tey dimbali leen ma ba nga xam ni euh, dëkk raison bi nga xam ni Euh, maa ngi fa euh, sant ñu defal ma fa 400 000 francs CFA dëkk boobu tey bëgg naa ma xool ki gën a fortunato fortunato ci italien mooy ki gën a am chance ah ku gën a fortunato moom mooy dem direct ci raison boobu mën naa jege raison bi nag pour wan leen ko sama loxo rek ngeen di topp sama loxo rek duma laal carrément raison bi mais bu ngeen xoolee ni ma def sama baaraam fi mu gën a dem foofu la raison bi nekk defoon naa ko fi daaw yéen a ngi fàttaliku ah raison bi ma defoon 1 euh, million bi tey nag am na raison boo xam ne dama fa santaane ñu defal ma fa mille sama loxo mi ngi direct ci raison boobu léegi yow mi nga xam ne yaay woote yaay jéem a xool ban raison laay wax ci raison yii joxoñ naa ko de xam nga mënoon naa def nii Saint-Louis ci kaw. mais dama joxoñ raison bi nga xam ne dama santaane pour ñu defal ma fa 400000 euh, francs ay ca maa ngi leen xaar ci 88 628 22 22 88 628 65 cinq non 88 600 76 06 06 88 628 20 20 allo ñu ngi may wax am na ku nekk ci ligne bi ma daal di daw Facebook live jox leen ñoom itamit seen ay greffage euh, Facebook live tey kuñ ci mënti di may greffage ñun ñoo lay wowal suñ bopp léegi nga ñëw jël si ko léegi bu dee da nga sori nag heure bu la neexee ñëw TFM pour mën ko jël greffage yu gudd a gudd a la pour ngeen mën a préparer li nga xam ne mooy seen tabaski ay ca téléphone allo. allo sëñ bi. waaw. yaa ma soxi de. allo. noo def yokkal sa tuuti. <coughs> waaye maa ngi sant yàlla sant yàlla bu baax. yow noo tuddoon. man falilu mbay laa tudd. ah Falilou macha allah. Falilou foo ñuy woowee. Géejawaay laa leen di woowee. sa ñaari tur yëpp a neex sa sa tur bi dafa neex. jërëjëf. sa sant bi neex. jërëjëf. Falilou bi dafa neex ba pare mbay bi sama doom mbay la sant. ah jërëjëf. Aïcha Falilou yaa ngi ba fan nii. man maa ngi ba Géejawaay. ah yow sori woo ma Falilou. dëgg la est-ce que bëgg nga ma ma ma guider la pour duma laal nag dëkk bi am 400000 mais bu fekkee ne daf la nar a tardeel ma bàyyi la nga tànn dëkk bu la neex mais bu dee da nga bëgg ma guider la nga tànn dëkk bi nga xam ne moo am 400000 francs bu la neexee. non ma bàyyi la nga tànn wala ma guider la def ay grimace nga xool ban dëkk moo am 400000. Euh, non mën nga bàyyi ma tànn rek. naa la bàyyi kon nga tànn euh, Falilou ay ca Falilou tey boo doon tànn ci 14 raisons yi euh, ban dëkk nga bëgg jël. bon man de du ma doon tànn ci 14 régions yi. Mm-hmm. allo. Falilou maa ngi dégg. waaw. ban dëkk nga bëgg tànn. waaw jël naa Saint-Louis. da nga ne Touba après nga ne Saint-Louis. non dama ni Saint-Louis laa ah ok ñu dem ubbil la Saint-Louis Falilou. waaw. Aïcha ñi ngi ànd ak maam Fallou te ab Fallou kenn du ko neenal ndax Fallooy Sénégal Aïcha maa ngi nii euh, laal naa Saint-Louis ñu xool lan moo fa nekk Falilou. Aïcha Fallou ñu àndandoo xool lan moo nekk Saint-Louis. d'accord. Fallou. waaw. bu fekkee ne <coughs> bu fekkee ne Saint-Louis bi fa la 400000 bi nekk nooy def Fallou. fa la 400000 bi nekk. ma saint bi bu ko ubbeegum dimbale ma bu dee fa la 400000 bi nekk nooy def. damay njëkk sant yàlla. waaw. sant waa TFM gërëm leen ñaanal leen ca kaw ca kanam. waaw. waaw. waaw man mi la ko may man léegi Fallou Saint-Louis bi am na 100000 <laughs> francs. am na 100000 francs. am na 100000 francs Fallou. jërëjëf jërëjëf c'est pas mal. jërëjëf jërëjëf. ayca yaa ko moom ñu ngi lay envoyé orange ne léegi ci sa téléphone boo ko xoolee bala ngaa coupé di nga ko dis dégg nga. jërëjëf jërëjëf maam Fallou dee ñu sànni ay ñaan soxla nañ ko. ca kanam mi ngi noonu damay demaat ñu ngi may wax ni awma benn temps parce que téléphone bi dafa saturé c'est normal te bugguma tëye kenn ci ligne bi moo tax ku ci nekk rek bu dee yeewu nga dawal nga jël sa téléphone nga commencé woote parce que fi mu ne 100000 laa démarré. te nee naa leen am na ci dëkk boo xamante ne nii 400000 barki Cheikhul Khadim man dama bëgg Serigne Touba ba pare man ruus naa fen chaque jour ma wax leen ko man dama ruus a fen dama jomba fen moo tax am na dëkk boo xam ne fii tey ku ko ubbi <laughs> bilaay di nga am xaru tabaski ndax 400000 moom xar moo ko jënd ba pare xaru yar ngay am yàpp bu nooy baax nga koy lakkal monsieur muy xàmp ay ca mi ngi noonu dañuy demaat euh, joxewaat euh, numéro yi ah dañuy demaat dañuy demaat pardon dañuy demaat dañuy demaat ci numéro téléphone fàttale wa fàttaliwaat ko ñuy soog a yeewu ñu yeewu woon ñu ngi woote ñi soog a yeewu dégguñ numéro bi 88 628 numéro bi 88 628 20 20 am naa beneen numéro boo xam ne 88 la 628 euh, 65 65 am naa beneen numéro boo xam ne tamit 88 676 05 05 am naa beneen numéro boo xam ne tamit 88 628 20 20 waaye am naa numéro boo xamante ne c'est 88 676. 05 05 ayca xaaral ma tànn benn Facebook live may ko benn cheveux naturel valeur u 200000 yaay xool boo ñëwee fii dañ lay jox nga tànn 3 boules la paquet bu ne 3 boules ayca maa ngi tànn kuñ naan maa ngi tànn <coughs> boo amee téléphone rek jox ma ma ubbilaat keneen beneen dëkk ñu xool 400000 yi bëgg naa tey xam ki gën a am chance ci seen monde Sénégal ban dëkk la dëkk. yàlla na nekk Saalum Saalum mais waxuma leen ni 400000 yi Kaolack la nekk waxuma loolu dama ne ki ëpp chance ci monde Sénégal yàlla na ko yàlla def mu nekk Saalum Saalum te moom lay doon sax parce que ñun Saalum Saalum yéen ñu gën a xam waaw ñun ay kii lañ ay sadomisel lañ <laughs> fier d'être Saalum Saalum rek mbay dëkk bu dàq boobu amul fii danoo wut si rek fii lañ koy ji arrosé ko foofu Saloum rek Aïcha ma may kuñ naan Aïcha Aïcha dafa daw Facebook live bi dafa gaaw euh, maa ngi Facebook live maa ngi gis kuñ naan euh, Maguette Sène euh, chéri Ablaye Djigo Maguette Sène chéri Ablaye jigo may nañ la fii cheveux naturel bu gudda gudda gudd boo xamante ne tabaski mën nga ko teg dangay ñëw nag fii ci TFM bu la neexee tey tey hmm? chéri Ablaye Djigo Maguette Sène Maguette Sène chéri Ablaye jigo may nañ la cheveux bu toll ci deux cent mille francs trois boules bu la neexee fii lay toll bu la neexee comme bii ay ca ñëwal Facebook live laa nekk noonu di nuyu nag euh, euh, sama capot euh, Kébé ah, kebe policier maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu tamit di nuyu sama bos ma ni tamit ah maa ngi lay nuyu yaa ma gën a noow <laughs> waa kii kii kii mbaa jàmm la may doy xaar ma wuyu parce que nuyu naa la nga continuer allo jàmm la maa ngi direct de jàmm la waa kon waa baax na Aïcha mi ngi noonu euh, ñu jëlaat téléphone 88 628 20 20 waaye 88 676 05 05 88 628 75 65 65 88 628 20 20 mais Sénégal il faut que ma fàttali leen que man je suis pas euh, euh, ni journaliste ni chroniqueur. moi présentatrice animatrice yu know xanaa animatrice du ñëw taxaw def nii di wax ci di Lamine mbaa muy wax ci Ablaye Wade wala ci Sonko wala ci Macky wala ci réew mi non non non non man ñooñu di leen jox actualité mu di leen stressé ak agression yi xew ci réew mi man bu ma taxawee fii yi damaa war a dindi seen stress ba mu set incha allah te xam naa ni mën naa ko ci kaw ngeen nangul ma ko dafa yomb lool ci seeni xol def naa ay commande nag pour euh, euh, pour anti stress pour sénégalais yi léegi euh, dañuy demaat jëlaat beneen téléphone alo alo allo. noo def. allo. oui ma chérie. ça va Amina. ça bien merci. yaa ngi ci jàmm. man de nekkuma ci jàmm. sañ seeti nga de. ah mbaa bii du indi coow. Ah, yow yow bu leen faale. mbaa bii du indi ay wax. li fi wax bu leen faale. ah tonton hmm. Babacar Diagne daa yiw de te lu ne lañ ko yónnee ci. rafet rek la def. xam nga ñun yàlla daf ñu may. ah. ma ne xam nga ñun yàlla daf ñu may. waa. directeur général macha mm-hmm. allah. allo. tonton Babacar Diagne. moom ma ne Sénéra xam nga dañ koy yónnee samay vidéo léegi. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg waa. léegi bii mbaa yiw na. ah bii dafa jekk yow loo def rafet na. ah kon baax na léegi tànnal ci dëkk yi ma teral la. <laughs> Aïcha wax ma fan nga may woowee ak tur bi naka la. Aïda Montero. Aïda Montero. waa mais Aïda yow dafa mel ne sama mbokk ngaañoo nga ah? <laughs> Caaroy e laa lay wootee. allo allo. bu tubaab bi jaaxle ba jaax dafa ni ko bamb. ni ku yaani woon doon sa borom te doo sa borom te waxtu julli jot soo waxtu wi di nga tooñ sa borom te boo jullee suñu biir jégalu euh, problème mu euh, toq yëf la woon aujourd'hui moom ça va pas pour moi mm. je sais même pas bëgg ma jooy ko mu jeex wala ma ma wax ko ma jooy ko wala ma wax ko apply apply euh, non non non ma wax ko <laughs> je suis fâchée ay Aïcha mi ngi noonu dañuy demaat jëlaat téléphone mi ngi may wax ni téléphone baa ngi rëx ñi ngi may wax ni téléphone baa ngi ay Aïcha njoletaal ñu koy nuyu mi ngi pare tournée internationale ak ay sourire am nice ak macha allah euh, ah rien compris ay Aïcha jox ma ko même appel bi ma dagoon bi dagoon sànq moo ñëwaat ñoo ko dugal Aïcha dina nuyu njoletaal bu baax a baax a baax mi ngi préparé pour def tournée internationale moom itamit euh, alo merci beaucoup allo oui Lady ku bëgg taay bu rafet dangay dem seeti waa. allo Lady allo. allo oui Amina. waa ma chérie. ça va man la Aïda Montero. waa Aïda maa la jëlaat. yaa ngi jàmm. maa ngi ci jàmm. <laughs> nee li nga sañ sa rafet na. kon xam nga ne teraanga Sénégal li ñuy def ñun dañuy maye rek te yàlla tax. waaw gis nga ne da ngeen di maye rek te yàlla tax. xam nga sànq da dem ñu jëliwaat la. billaay wallaay. ay dama lay bàyyi nag nga tànn rapidement. raison bu la neex fii ci dëkk yii. waaw. ay tànnal ban dëkk. ah ma xool image bi ci télé bi. ay euh, image baa ngi nii. Ah. am na Saint-Louis. Mhm. am na Louga waaw am na Dakar. waaw yaa Diourbel. waaw ci suuf. Mm-hmm. am na Matam. Fatick. Kaffrine Kaolack Tambacounda mm-hmm. Sédhiou Kolda euh, ak Kédougou. ah est ce ma jël Tamba rek Tambacounda. Ah, ma yóbbu la Tamba tàng na heure bii de ma yóbbu la ah. <laughs> waaw. ayca ñu dem xool Tambacounda mën na am lu baax. parce que Tamba moom macha allah fi ne lépp ñor na ay ca topp c'est parti ay ca ñu xool Tambacounda lan moo fa war a nekk vous pensez waaw Tamba Tambacounda 4 3 2 1 c'est parti Tamba am nga 75000 francs. ah merci waay. am nga 75000. ma chérie merci beaucoup kontaan naa. bëgg nga. kontaan naa trop. ay ci xoolal sa téléphone war ngaa jot message. ay ca mi ngi noonu dañuy dem jël keneen duñ ko fi téye crédit di jeex euh, parce que comme teranga sénégalais la dañuy defal yàlla rek léegi dañuy dem jëlaat beneen téléphone mais bala may jël beneen téléphone ma fàttaliwaat leen euh, numéro yi 88 676 05 05 am na beneen 88 628 65 65 am na 88 676 06 06 am na 88 628 20 20 ay ca numéro yooyu ku ci wootee dugg bu gaaw ngay dugg xanaa mu saturé parce que du yow dong yaa bëgg a dugg moo tax numéro yooyu ma leen jox ku ci wootee boo duggee di nga jël lii sa wërsëg nee naa leen am na foo xam ne am na 400000 barki Serigne Touba boo fa ñëwee léegi ba ubbi ko moom sa bamba dana maase reyante leen ubbi foofu bëgguma émission bi jeex te duñ ubbi foofu ñu dem Facebook live mayewaat fa beneen cheveux naturel kii mi ngi tudd kinne bu maam fàllu ki ne bëgg fàllu ay ca bëgg fàllu jël leen ko am na fi cheveux naturel bu mille francs ki ne bëgg fàllu Facebook live am na fi cheveux naturel bu 200000 cheveux naturel bu 200000 francs trois takk bul ayca kon mën nga ñëw fii kinne bu bëgg sëñ fàllu ci tele bi ñu jox la ko ñu demaat jël téléphone ci 88 628 20 20 waaye 88 676 06 06 88 628 65 65 euh, 88 676 05 05 ayca 88 628 euh, 20 20 ayca maa ngi xaar beneen appel appelaay wala nga may ma agresse agresseur bu euh, bu Omar Pène euh, parce que affaire yi mi ngi bëgg a ëpp quoi nañ leen dawal yërmande nañ leen dawal tuuti yërmande xaaral ma ñëw xaaral. xolal buleen bañ sax yenu barki maam saaliw chaque jour dama leen koy wax man ku ma xool tey ba bëgg ma ba ma su ma la waxee li ma traversé lépp barki sëriñ Touba da ngay jooy te lépp ci liggéey laa ko teg bul sàcc bul fen pour ñu may la bul def dara lu ñaaw demal nga uti loo def y a pas de te ngeen bàyyi xale yi yor scooter yi di liggéey pour seen njaboot ngeen leen di kar di leen jam di leen def loolu dafa ñaaw këf fekk ni takk ay bijoux nga këf ko daw loolu gàcce la boo weetee ba jaay ko di nga ruus góor day liggéey te sàcc gi ci réew mi nag bari na góor ñoo xam ne jigéen ñi ñoo leen di sàcculoo soo mënee nopp koo xamante ne danga koy nopp te yàlla tax nga nopp ko te yàlla tax mais boo bëggee nopp doomu jàmbur di ko teg lu mu mënul di nga ko sàccloo di nga ko reyloo nit ñu dem déglu Omar Pène ñëwaat ci plateau bi jël téléphone léegi léegi let's go nekk dafa bëgg xaalis te ñemewul coono li ko yomb dafa bëgg xaalis suma la woy xanaa sa ba di nga bàyyi ñi ngay dogale suma la woy di nga soppi xalaat war a bàyyi ñi ngay agressé Mesdames et messieurs beneen téléphone ci 88 628 22 22 bala ngeen jox ma beneen téléphone ci 88 676 0 606 nee naa leen euh, Facebook live bi dinaa fa maye tey ay cheveux yu bëree bëri pour ñi nga xam ne ñoo bëgg préparer seen tabaski valeur 200000 ak Omar cheveux Omar cheveux nag ñëpp xam nañ ko arrivage bu bees tàkk moo ñëw yaa bëgg frisé red closure loo mënti di bëgg Omar cheveux am na ko kon nag. Facebook live dama leen di may yéen ñëpp ay cheveux d'accord jox ma téléphone allo allo. Aïcha Kumba jox ma ko allo oui allo saturé d'accord ñu dem Facebook live mbenn Sène mbenn seen am nga fi euh, cheveux naturel mbenn seen nag sore na ma nga ba Touba euh, mën nga ba Diourbel Touba Diourbel luy foofu. Diourbel walla Touba ah Diourbel Mbène Saliou euh, Mbène dafa dem sax moom gisatuma ko kii mu ngi tudd Aminata Koli madame Sène Aminata Koli madame seen am nga fi cheveux naturel bu mille 3 boules yaay xool frisé nga bëgg redd wala bu gudd wala bu gàtt ay ca boo ñëwee fii ci TFM ñu jox la ko Omar Cheveux moo la ko may ñu dem tànnaat keneen euh, kii mi ngi tudd Amina Poté 2 madame Seck <laughs> yow dama lay may cheveux ak juróomi junni soo ñëwee TFM euh, jox ñu sa carte d'identité rek euh, madame Seck Amina Poté 2 madame Seck may naa la 3 boules bu cent mille tegal la ci 50 mille ay ca Facebook live laa nekk ba tey waa jox ma téléphone bu fekkee am na allo allo. allô encore technique non dégguma dara ah, man dafa waa waaw yéen ñiy woote def leen ndànk parce que bu ngeen duggandooyee affaire bi du mën a euh, possible ayca ayca ñoom ñoom ñoo duggandoo ñu demaat euh, ci 88 628 65 65 88 628 600. 76 06 06 88 628 20 20 88 676 05 05 ay ca euh, fi mu ne nii 400000 euh, bi tànk waxuma dëkk bi mu nekk ni ngi nii mille bi dëkk bi nga xam ne fa ne bu ma ko waxul sama xolu du sedd. xool leen sama baaraam 88 628 22 ay ca xool leen sama baaraam damay bañ ngeen foog ne vert bi la du vert bi de damay bañ ngeen foog ne mauve bi la du mauve bi de <laughs> xam nga dama ko waat te man du ma waxantu am na boo xamante ne ku ko ubbi rek hmm, ku ko ubbi rek am na boo xam ne ku ko ubbi rek danga ciy dal <clears throat> bii la damay bañ ngeen foog ne blond bii la du blond bi sama ñaari baaraam yi fi mu jubal foofu la 400000 francs boo ko ubbee bu fa nekkul bu la neexee attaqué ma guerre 400000 bu nekkul fii bu la neexee attaqué ma guerre. ay ca 88628 76 76 88628 20 40 88 cinq 65 65 nga mën a ubbi lu la saf bu fekkee ne Kumba am nga téléphone nga euh, jox ma ko ay ci allo allo. allo oui. sarax ma ngir yàlla nga dem jël cent mille bi léegi léegi. ah bëgg naa ko de. parce que man xam nga lu tax su ma ko fi bàyyee Pape ah. Cheikh moo koy maye rek. ah bëgg naa ko. te Pape Cheikh ak ay clientam man ak samay client ah xam nga ñoom sa yow la ñuy wër moo taxee sàjj léegi nag Pape Cheikh xam nga yaa ma gën a xam xol bi dafa rëy bu ñëwee léegi da leen di wax fi mu ne. waaw waaw. léegi nag xoola sama loxo wala jarul ma lay gidee ma bàyyi la nga dem. ah booba gidee tamit ma jël de. waa léegi fàttali ma fi nga dëkk ba pare. maa ngi dëkk Dakar. yaa ngi dëkk dakaar di wuyoo nan. Caana Jaw ah yow sama sœur sama taawu yaay Caane la tudd de. ah moo tax ñu bëgg Caane yow est-ce que la wax dëkk bi. ah boo ma ko piisee ci bët rek moo jël ko. caane xoolal sama loxo. <laughs> maa ngi koy fixé nii. Abdoulaye zumal sama loxo. <laughs> ay ca caane ma bàyyi la nga tànn ma xool. <laughs> bàyyi ma tànn Saint-Louis rek. wuy sama ndey jege woon na ko wuy ay ay. caane yàq oui ayca Saint-Louis ci Thiané euh, borom euh, Ndakaaru ayca tànnal naa ko euh, Saint-Louis Thiané jël na Saint-Louis tànnal naa Thiané. damay changé Amina ah. ma Saint-Louis est-ce que doo ko changé parce que am na ku jëloon Saint-Louis. kon ay waay jege nga 400000 yi wuy sama ndey. <laughs> bàyyi ma jël Louga kon. wuu na. <laughs> jël na Louga ay ca jox leen Louga mën na am Louga am lu baax mais waa Louga. tamit. 5 4 3 2 1 Louga am nga soixante quinze mille. ah merci beaucoup Amina. ay ci am nga soixante quinze mille ci Louga loo. waaw Amina bëgg naa sëba de lu may def. <coughs> ah. sëba yi bëgg naa ci. ay ci bëgg nga alo ah jot na message am ay ca yónnee nañ ko Orange Money ba tey di jaajëfal waa Orange Money parce que nee naa la euh, tarif bi léegi euh, zéro pour cent la bu fekkee ne da ngay dugal doo fay bu fekkee ne da ngay retirer euh, doo fay bu fekkee da ngay verser doo fay booy retirer doo fay juste que bu fekkee ne da ngay def envoi da ngay def zéro virgule huit fayoo dara. fi nekk nii ci marché bi ñëpp tuxuwaat nañ ci Orange Money c'est vrai que temps yee nit ñi ñu ngi doon cenc di xool leneen mais Orange ne no seulement sécurité bi mu àndal ak wóor gi mu àndal ba pare ñëw yomb gën a yomb ci marché bi tax na dëkk bi ñëpp tuxuwaat nañ bu ngeen mënee am application Orange Money seen i téléphone nag day gën a yombal seen ay jël ak joxe ba pare ñuy remercier waa euh, waa Orange Sonatel Orange Sonatel ñoo ñu may villa bu 40 million villa bi macha allah euh, couple mën na ko mën na ci dëkk ak ay doomam comme quoi que célibataire it mën na ko gagné euh, mën nañ ko ko may mu dëkk ci ak ay doomam. Euh, léegi ñi ngi remercier encore ki nga xamante ne mooy lii borom CSB mën ngeen ma woo ah damay wax bu ma paree rek comme wax naa leen fi 400 mille yi nekk. bu ma paree rek damay jël téléphone Aïcha bu ma paree rek damay jël téléphone 88 628 04 05 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 22 22 di remercier Djili borom euh, CSB mais kii lan la may doyee ah man tiit naa de allo waaw waaw mais maa ngi en direct nii gisoo ko. man de jaaxle naa ay ca 88 628 22 22 88 676 03 03 88 628 22 22 dañuy remercier ki nga xam ne mooy jii jili borom euh, CSB moom yi nga xam ne moo ñu jox euh, frigo yu yànj yi euh, jox ñu télévision yi mujjee génn ci télé yi yii yëpp dañu koy mayee remercier borom ombaliko ko ci habillement lañ ko xamee woon moom macha allah bu la solalee rek nga ne gongo mais léegi nag Sénégal kenn dematul ci benn sëwrum ndax Adja ombaliko moom lal yi da koy garanti euh, euh, fauteuil yi mu garanti ko télévision yi lépp lu mu la jaay daf koy garanti macha allah boo demee euh, sa ci wetu stade Iba Mar Demba Diop. wetu stade ba jóg boo laajtee di nga gis soxlawul laajte sa room bi mu ngi foofu te boo yeggee di nga am euh, li nga xam ne mooy euh, sa goût préféré ci ay meuble am euh, macha allah waaye tamit kenn du jili mi ngi ci rompoint point cité kër góor gi ba pare moom itamit gis nga téléphone bi moom ma ko jaayoon léegi mu def deux ans téléphone bi gis nga amul benn problème ba pare daf koy garantie dañ koy garanti jili CSB mi ngi euh, ci euh, cité kër góor gi mu nekk taalibe nag di suñu frère boo xam ne man sama kër lu fa nekk machine à laver bi four bi micro bi climatiseur yi man lépp jili moo ma koy jaay li tax mu ma koy jaay mooy euh, daf koy garanti moom danaan la problème boo am rek indil ma ko dinañ ko régler ba mu baax su fekkee baaxul mu changé la ko kon nag jiili CSB jàpp leen ko ngeen di seet fan la nekk ci àddina ngeen di dem ci ay sëwrumam ay ca ñu dem jël beneen téléphone parce que am na koo xam ne mu ngi ci ligne bi di ma xaar ñu demaat Facebook live maywaat li nga xam ne mooy ay cheveux allo soxna si al waa allo may préparé leen may ma benn coon sekk de apply préparel may ma benn coon seek siiru jàmmi borom allo jox ma téléphone bi ay ca Facebook live euh, ñu may euh, kenn euh, greffage kii mi ngi tudd kii mu ngi tudd Daba Sëy xanaa trondoo Daba Sëy bii wéy la Daba Sëy madame Diop Amina may ma ba tabaski bi ñëw na macha allah ba pare taalibe Serigne Saliou bi yow bul tiit bul ragal jàmm ak ndam rek sa xol rafet boroom Saalum Saalum bi waaw maa ngi nii ana kuy saalum sa loxo ca kaw ay ca kon daba sëy may nañ la euh, euh, may nañ la fi greffage takk bu ñetti takk valeur u deux cent mille francs Omar Cheveux moo la ko may euh, daba sëy la tudd jël leen ko ngeen bind ko ñëwal fii ci tele bi ñu jox la ko allo allo dooma may dooma may coon sekk bi s'il te plaît

76 06 06 ñu ubbi nag euh, loxo yu diis yi 88 628 20 20 88 628. 65 65 88 628 euh, 20 20 88 676 0 pardon 05 05 ayca bu ngeen amee kenn jox ma ñu commencé nag ubbi loxo yu mag yi ayca ayca sama café jeex na de Kumba. <laughs> yàlla baax na ayca ñu dem jël 88 628 22 22 bi allo allo. allo. oui. allo waaw. sëñ bi noo def. maa ngi fi kay. yaa ngi fi kay man kay xam naa yaa ngi fi. waaw. <laughs> noo tudd kay moo ma yéem mais yow xam naa ni yaa ngi fi. man maa ngi tudd Abdoul Aziz. yaa ngi tudd Abdoul Aziz. waaw. Eh, Abdoul Aziz fan nga ñuy woowe nii. Rufisque. ah. Rufisque Rufisque. dégguma dara ah. ma ne Rufisque Rufisque. yaa xanaa da yokk sa télé bi. noonu ok yaa ngi Rufisque. waaw. Euh, Abdou Aziz am nga soxna. man non. waaw kon mën naa laa may lu yem rek comme yoroo soxna yoroo njaboot amoo benn soxla. ah. ah. ma ne comme yoroo soxna yoroo njaboot amoo benn soxla mën naa laa may tuuti xaalis rek tuuti rek. ah waaw ba tey loo ma yéene rek baax na. Ah. wala ma yokk loxo bi rek. waaw ah, yaay xool rek. mais yow waxal ma yokk loxo bi wala ma wàññi loxo bi waxal li la gënal. waaw ah, yokkal waaw. ma def ko ñaata mètre. yaay xool sa yéene rek. yow ay ñaata mètre nga bëgg ma tàllal sama loxo. ay vingt mètres yooyu rek. <laughs> Abdoulaye vingt mètres xanaa ku la xëcc ba tëngeej nga bëgg. <laughs> ah gis nga. Aïcha <laughs> Abdoulaye borom tëngeej tànnal si dëkk yi dëkk bu la neex ñu xool. am na dëkk boo xam ne nag moom tey boo ko tànnee sa bambay maase Abdoulaye. waaw ay ca tànnal ci dëkk yi dëkk bu la neex ma xool. Kédougou Kédougou. Kédougou. waaw est-ce que Kédougou jëluñu ko Abdoulaye. ah kontaan na Sédhiou. madame Kédougou madame Sédhiou. Sédhiou waaw. ok Sédhiou kenn jëlagu ko côté Sédhiou du ma sax jegel ci suuf après Sédhiou moom Sadio Mané dëkk. naa dafa jeex de. Sédhiou Abdoulaye. Abdoulaye. waaw. ñaata nga yaakaar ni moo nekk Sédhiou. ah wax dëgg yàlla moom xamagoo ko. non. ay cër. Seydou 1. am nga 100000 francs Abdoulaye. ak 100000 francs. am nga 100000. ak jërëjëf waay. xanaa loolu bégloo na la. waaye kay kontaan naa trop. ah. kontaan naa trop ma ne kontaan naa trop. kontaan nga. waaw bilaay walaay. jeex na yaa ko moom Abdoulaye borom Sédhiou ay ca jox nañ koo xaalisam jot na message am léegi da ngeen may may tuuti rek le temps que nit ñi dugg ci téléphone bi gis nga ay cent 200000 te boo duggee doo fi yàgg ñu jox la li nga moom nga dem kon am nga pour jël sa téléphone woote tenter sa pour ci teraanga yi nga mën ci am ay ca ñu dem Facebook live mayewaat ay cheveux kii mi ngi tudd Myriam yi Myriam Dieye am nga fi euh, cheveux naturels Amina macha allah tu es toute belle euh, Myriam Dieye dafa dem affaire yi moo bari du mu ko mën liir lépp kii mi ngi tudd Ami Seck euh, madame Sène Ami Seck madame Sène Amina man dama la bëgg torop si sama xol bu ma lay seetaan sama xol bi day neex macha allah en tout cas ñi ngi ñaan maam Saliou teg la loxo en fonce. ok may naa la ci loolu cheveux naturel bu cent 200000 3 euh, boules yaay xool bu gudd wala bu gàtt ah Aminata may naa la fii cheveux naturel mën nga ñëw fii ci TFM ak sa di d'identité booy ñëw pour ñu mën la ko jox ay ca kii mi ngi tudd téléphone yi mën nañ woote ah mën ngeen ma woo ci 88 628 22 22 wala 88 628 76 76 wala 88 628 20 40 wala 88 676 06 06 wala 88 600. 28 65 65 pour ma mën a ubbi li nga xamante ne mooy mille bi 400000 bi diggante Saint-Louis ak Kolda la nekk maanaam dig-digal boobu fa la nekk non man waxuma tur de dama ne diggante non waxewuma ko. barki Cheikh Béthio Thioune waxewuma ko dama ne diggante Saint-Louis ak Kolda loolu ku ko moom ah d'accord bu fekkee loolu ku ko fi wax da ngay am problème maane ne Saint-Louis Kolda léegi sax kon damay wut car di def Kolda Kolda Saint-Louis Saint-Louis ba xam ku ci mën dara <laughs> wa wa waaye yow ay ca 88 628 20 40 ñu ubbil euh, kenn parce que nee naa leen 400 000 bi mi ngi mais waxuma tur waxuma ko baal ma pour la baal ma benn nit rek a koy dégg sama gémmiñ mais du yow <laughs> non jamais non non <laughs> maa bañ non jamais jamais jamais waaye yow maa ne diggante Saint-Louis ak Kolda fa la 400000 bi nekk Saint-Louis ci kaw la nekk Kolda ci suuf maanaam kon yi ci diggante bi fa la 400000 yi nekk ah man en tout cas man jamaa ay ca di nuyu waa Facebook live rawatina waa TikTok di nuyu Khadija ah, mi ngi ci TikTok bi benn siste la boo xam ne macha allah. dafay nekk di xeex injustice il faut ngeen bàyyi xel ñi ci TikTok bi TikTok bi bëri na ay nit yoo xam ne dañu am talan billaaxi boo leen dégloo dañuy yokk sa expérience am na nag lu bon TikTok moom mbeddu mbalit la mais souvent nga dem ci mbalit for lu baax loo jariñoo parce que sama yaay da daan wax naan morceau morceau boo xam ne mënta sama yaay am na nu mu ko daan waxee mu ne sagaru nit baaxul ñu ne ko luy loolu mu ne sagaru nit mooy lu mënta fomp dara sagar bi ci mbedd mi boo ko foree di nga ci mën a fomp tiflit di ci mën a fomp deret waaye sagaru nit fompul dara ba tax na TikTok bi yaa beaucoup de personnes yoo xamante ne macha allah dañu baax ku ci mel ni ñoom Khadija euh, euh, ak euh, ñoom jimboo nii ak euh, ñoom lëx-lëx sama jëkkër joojule <laughs> nee na man la nopp lëx-lëx lëx-lëx I love you ak euh, ñoom góora góora mooy kuy toppandoo nit ñi rek di rey nit ñi ak euh, bëri na daal xale yu nekk ci TikTok bi xam nga man je suis pas trop de réseau social moo tax euh, yu bari duma ko mën a xam mais dinaa fexe wàcce seen tour yéen ñi nekk ci TikTok bi yëpp yëpp yëpp ay ca euh, ñu dem nag ci 88 628 20 20 88 676 05 05 ñu dem ci 88 628 20 20 88 676 05 cinq ñu dem euh, euh, mayewaat euh, greffage Facebook live dinañ may trois personnes doog a tëj ki may njëkk may mi ngi tudd Oumou Kalsoum Sy borom xelkom Umu Kalsoom si euh, borom boutique xelkom Umu Kalsoom maa ngi lay nuyu ba pare may la fi cheveux bu 200000 francs Omar cheveux moo la ko may ñëwal fii nga jël si ko ak sa pièce d'identité ay ca Facebook live bi fi laa nekk nii ay ca 88628 22 22 bu téléphone amee le temps que may dégluwaat Youssou Ndour bu Bamba bi daf may renforcer dafa may yokku kii yéen xam ngeen ne tey damaa mer aujourd'hui je suis fâchée franchement je suis fâchée ah te fii xoolal ci kanam tuuti bu ngeen ma neexalul dinaa damay lekk li fi ne <laughs> ay yokku ko mu ni ko yaa ne tooñ sa borom te doo tooñ sa son te waxtu julli jot soo waxtu wi di tooñ sa borom te boo julee suñu biir yàlla dinañu tooñ bamb sànni jël ma kii tubaab ba jaar you hear me Father Bamba Sei que faz eu também. got in me. Your prayers, our prayers, for no see will not be anymore. Hear me, Father Bamba. Say, hear you, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? Say, hear you, Father Bamba. mën naa tàggoo ma tàggatoo ah xama tax lii xaaral ah ma jël quelques personnes appelay Aïcha mi ngi noonu dañuy dem nag nuyu ci ki nga xam ne mi ngi tudd euh, mi mi ah c'est ma Milo ah Milo maa ngi lay fóon ma jumelle d'amour en tout cas depuis France euh, Milo maa ngi lay fóon di la nuyu bu baax a baax a baax kooku ma ak moom ñoo bokk jour anniversaire le 10 janvier mooy birthday am muy xale bu réglé li ma bëgg ci goney showbiz moo ko dal nekk ci mannequinat bi ba jóge fii dem dëkk France ànd ak njabootam ak fameem ba pare di xale bu macha allah correct correct xam nga correct c'est intérieur si doomu aadama mooy baax. jub yéene ñëpp jàmm ba pare nangoo liggéey ba pare bëgg ay mbokkam c'est important Aïcha du nuyu ay Aïcha Diallo yaayu euh, nabu Diop ak euh, ak Kumba doomu Chaay di nuyu doomu euh, Chaay Aïcha Diallo doomu Aïda Doucouré maa ngi nuyu ayda bu baax kooku sama yaay la di nuyu Marie Niass Niass Kumba Abdalaay jarbaatu doog Moor ak Adi kooku nag sama bos la Marie Niass je di nuyu nag ki nga xamante ne nii mooy Mbène Mbène maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la fóon fóon yu pata di nuyu euh, soxna Diallo ma ca bureau ba soxna yow kese laa nuyu ah. I love you soxna soxna ak Jalika euh, depuis Ziguinchor maa ngi leen di nuyu mais di nuyu Papa Laay borom range yii oto yaa ngi ñëw de Sénégal euh, benn jaaykatu oto moo fi am boo xam ne dafa dëggal boppam. ay oto yu ngand lay indi ay deux 2023 lay indi <laughs> papa lay borom range yi séeri Kodou Fall yaayu mbay euh, baayu mbayta maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mère Thialla depuis euh, sama immeuble ci kaw di nuyu Adama euh, Sall kooku c'est c'est une sœur à moi c'est mon amour Adama Sall maa ngi lay nuyu bu baax a baax yaayu Aminata ak Pape hmm, Adama je t'embrasse je t'aime I love you fon naa la euh, di nuyu Ami Collé Lawbe kooku mooy suñu lawbe maalaw euh, di nuyu nag euh, Mohamed Jara depuis Sweden Mohamed actuellement mi ngi Gambie di nuyu Hélène borom Hélène borom Washington actuellement moom it mi ngi. mi ngi euh, Sénégal Hélène doomu ndeyu yaay dix ans yin di nuyu Lamp Fall kooku c'est mon ay Aïcha yéen ñëpp euh, mi ngi noonu euh, maa ngi leen di bàyyee antenne bi Pape Cheikh mi ngi ñëw en tout cas remercier waat ñi nga xam ne ñoo nekk partenaires yi Ombalico Déco Jili CSB ak Youssou pas su nduur quoi groupe Futur Média moom mi nga xamante ne moo joxe package boobu nga xam ni da lay yóbbu Bercy indiwaat la ba pare jox la argent de poste ah, di remercier technique ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun équipe technique bi Munti Apulaay euh, Alaaji Malick euh, madame baax Oumy Ndiaye mu baax moomu nga xam ni lu ñaaw xamu ci dara madame Mbaw sama yaay chéri David David El Capo ah mi ngi noonu lim Dioum ñi nekk rési ñëpp ñoom Kumba euh, ñoom madame Guissé Adja madame Guèye bàyyiwuma kenn yéen ñëpp maa ngi leen di foon di leen jox rendez-vous suba incha allahu rabbi mais duma fàtte Tike Ndiaye madame. Euh, madame euh, madam Fall Tike Ndiaye mi ñu dékk euh, sëñ Abdou Sakkoor Fall Tike Ndiaye di jeeg joo xam ne macha allah ku ko yab dafa fekk moom mu biddanti Tike nag moom lañ dénk suñu sang bu tedd ba suñu sëriñ bi sëtu Cheikh Ibra bi sëñ Abdou Sakkoor Fall kon Tike maa ngi lay nuyu borom France Tike garmi bi Tike ku baax. ku gore ku yaatu ku bëggu borom këram nag te réglé barki Serigne Touba lu jafe ci réew mi nopp sa jëkkër yam ci moom dafa jafe léegi te moom macha allah ci loolu la ne ma ca wetu sëñ ba rek toog moom Tike Ndiaye ñi ngi lay nuyu bu baax borom France ay ca kon rendez-vous incha allahu rabi euh, demee nes maa ngi lay nuyu yaayu euh, yaayu mami saar ak bébé ndaw ah di nuyu kani géy papa géy xaar géy farama ca ndeer naataango mi ci mbaylaan jimmi noon ko soxna Ndiaye su ma jooyee mu jooy bu ma reetaanee mu reetaan kani maa ngi lay nuyu ñoom aram wañ daba juuf maa ngi lay fóon jaaji ji mention spéciale ci yow chéri Aïcha en tout cas suba day gën a neex tey je suis un peu stressée je suis pas bien aujourd'hui mais demain dama leen koy promettre dama leen di defal ay basket gis nga ni may défilé nii tey suba dama leen di defal basket aujourd'hui je fais des talons presque cinq centimètres mais demain je fais du basket incha allahu rabbi di nuyu nag Ramatulaay madame Diaw borom dàll yu rafet yi ci man borom sac de marque yi Ramatulaay chéri Mansour Mansour directeur école macha allah en tout cas Ramatulaay borom sac yu baax yi massion spéciale I you tout le monde yéen ñi ñu doon seetaan Sénégal ba Europe. Angleterre partout ba Amérique Asie ñëpp nuyu nañ leen en tout cas à demain incha allah 9h30 ci émission Teranga. Sénégal je vous